Muhammad al Muxtaar laa xalqa yàlla dootul binu ko mel ne Seydina Muhammad Muhammad al Muxtaar laa xalqa مثل عليه السلام من يقول أمر كلمي محمد المغروب ماخر ومانع وبعس مخصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مرتدى مريط العداء مبيخ ومبعوث إلى الأرض والمي مليون جلعنا دجلنا معلل مليخ ومخصوم من الناس والوهم مدينة علم المرتدى جمعية لنا دريء ومنزل من سرابي ومن سلمي ما الله عني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا قديما بلا قم من الله رب الشوق صلاته بتسليمي للمصطفى مقتل الهم Serigne Cheikh Lo yal na fan nu yokku ñun ñoo ngi ñaan fanam mi sax nu fun ko Serigne Cheikh na Lo yal na fan nu yokku ñun ñoo ngi ñaan fanam mi sax nu fun ko Serigne Modou Lo yal na fan nu yokku ñun ñoo ngi ñaan fanam mi sax nu fun ko Cheikh Modou Lo yal na fan nu yokku ñun ñoo ngi ñaan sa fan wi sax nu ful ko Cheikh Modou Lo yal na fan wi yàqu ñun ñoo ngi ñaan fanam bi soxlu ful ko yaamal ala an sardatin waan walat xutni waw jamiana sarfalat wajal ilahi maskani tuba abad mis rasmiha bi jaayi xayri man abad daan na dem di buubal maam cerno mi ko jàngal daaru muxtu di gër ko ngir jëmi daama seexi anta fab ko def ko mag te wek ko mos la jumba diir ko mbaggam na war maam Cheikh Massamba Mbacke mbagam yépp ñoom la wegoon mu weggu sell lu waay laaj mu jox la na tab ci jikkooma yoon wi def na ci mbir yu du réer am na ngeen ji tiitar gudul dañ ba saamam ginnaaw daam ci saayir la def Cheikh Modou Moustapha mbër mos la ñàkk yaakaar na moo di doomam jumaa yi Seexi Bamba jumaa jeefa Tuubaa am na seex ma sàmba mbàkke mi di caan ma jumaa yi seexi bamba juma jeefa ngaabu xam na seex ma sàmba mbàkke mi di caan ma daan na dem fa carrière toj fa foofu ay xeer kooko moo di jàmbaar jëleen doy co doy ma jërë ngeen jëf tabarkalla tabarkalla fii ci dëkk bu tedd bi ñu nekk tey di ngaabu fekk si fi tey sëriñ Mouhamadou Lo mii ngir bisub ñaan bi nga xam ne mi ngi koy defal way juram bàyyi sëriñ waaye fas ci yéene tegaale xeeru néegub yàlla ak daara ji mu fas yéene yeesal ba dëppalikook jamono comme ni ñu ko waxe woon mbokk yi ngeen xam ne tey jii ci ajjuma di fukki fan ak juróom ci digg wi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai day bis boo xam ne euh, ma ne son naa wax ne weew gar jog da cee joggi waw muus ndax bis boo xam ne sëriñ Muntaxa xalif général des Mourides da caa woote Touba njàngum xasiida sëriñ Amdi Fall Moodu Mbend woote fa sikru laa mu ànd ak ajjuma ji woote ci gis kenn lu jafe la waaye nag lañuy def ca Touba ak la ñuy def ci Ngaabu gii genn jëf ji rekk la kenn deful ci bis bi lu gën a rëy te xeeru daara ji ñuy jàngale alquranul karim ak néegub yàlla bu ñu mën a jooxee sunuy julli ak ñaanal sa way jur loolu rek moo a fi dajale loolu moo tax ci xataayu waxtaan wi ak waxtu wi kilifa ya bàyyi ko ci kilifa gu mag ak see guñu ñu ne nañu jiital lenn ci kàddu yi ba bu kilifa ga agsee rek ñu daal di mën a jublu ci loola bala noo àgg ci waxtu waxtu waxtu ajjuma ji ndax ajjuma bi agsee rek dañuy tënk te mbooloo ñaare yëkkati ko mu yëkkati ko tegaat ko mu toll nam toll woon yombul kon day jébbal kaddu Serigne Modou Mbacké moom Serigne Abdou Salam moom Cheikh Massamba mu yell nag lool ndax lépp rek soxna su tedd sa di soxna kon noo ngi ñaan suñu borom dolli ko ay ngërëm ak leer te ba sax mooma dee ak njabootam gu tedd gëtë sëtam yi fi nekk seen borom aar leen ba ñu àggale seen i mébét kon Serigne Modou lañ bëgg a jox kaddu incha raw looti leen tuut ma jóg solli fi mboot ba ngeen yokk soobaat Cheikh Massamba Thian ma xeraw looti tuut ma jóg sol fi mboot ba ngeen yokk soobaat Cheikh Massamba Thian ma satu balla aysa moo di bàcc gor doomi soxna isa xencu len amul kam ca gaña ca wilayah wilaya da daa jàngi ya ca feese am ta anta da fay mbar mu nabu mbiram nak ta sop mu sabalu maami da da jamu buur ba dira nam ba gemon cheikh bamba mi doon islam bamba def di bayam def ko def ko rakam def sangam di wayam ba far mel ni ba serigne mor la feeñoon ci sayir bamba moko jox tur may koy maqama cheikh abdourahman lo moko xamal qur'ana mu mokal ba bindon fa darul ulama mu jóg far fa aw yoon jam daaru marnan fekki foofa fa danan la mam cerno faati detaay bi da xat ci talif bi gudd da ci do barke ko noonu rek ci sëñ Masamba waaye xam naa soo fi deseeg ñoom lo dina àggale talif bi seigne bi bismillah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 bokki jullit yi fi teew sunu bokki bopp yépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñi nuyu ñépp ci bërëb bu tedd bi bërëb bu màgg bi muy ngaaw di dëkk bu Cheikhul Xadim radiallahu anhu dëkk boo xam ne sëriñ bi bàyyi woon na ko xel muy dëkk bu barkeel ñu ngi nuyu boore mbokk yi fi teew yépp ci turu sëriñ Mouhamadou Lo mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ñu koy jiital ci nuyoo bi di ci teg mbooleem ay rakkam di ci teg mbooleem gan ñi nga xam ne dañu jóge ci président de la république Bassirou Diomaye Faye ñi ngi nuyu ñëpp nuy nuyu boolam mbokki taalibe yëpp bokk ci li ñu fi dajale dafa rëy lool ci lislaam lislaam amul lu gën a rëy jàkk lislaam amul lu gën a rëy daara ji ñuy jàngale ngir xam yàlla ñaar yooyu ñoo sos diine jàkka ak fu ñu jàngalee diine sëriñ bi am yéene ci def ko fii ci bàkk bu tedd bi muy lu am solo lu ñu rafetlu ba tax na sëriñ Mamoor mi fi nekkal sëriñ Massamba bi mu ko yégee daf ma wax ne yow kat ginnaaw dangeen di ñaanal seen nijaay sëriñ loo kon kàddu yi ñu fay rotal na ngeen ko ruutal ci turu kër gi sëñ Mamoor bu sëriñ Masamba di rafetlu bu baax taxawaay bi di rafetlu bu baax doxin wi di ñaantim lii nu tàmbali muy daara ji ak école bi yàlla def ci barke yàlla def ci tawfiq ak taysir ba mu àgg ci jàmm di xamle na tey ba tey mbooleem njabootu sëriñ ma Massamba gi yépp fas nañ ko ànd ak fas nañ ko yéene ànd ak sëriñ Moodu ci liggéey bi incha allah nee na rafetlu na ko lool tey lu yàlla ci bërëb bi la lu jaaru ci bërëb bi la ndax beureubu Cheikhul Khadim la waaye beureubu Serigne Massamba la kon buñ ko fa defele yoyu yoyu lu yalla la lu jaaru la kon mi ngi sante boole mu bokk yépp ci turu Serigne Mamour bu Serigne Massamba di len soñnaat bu baax ngeen wat sen bop ci ben boom ngir liggéeyal suñu borom ndax yàlla dafa waxoon ne tasimu bi hablillahi jamia wala tafarraqu nee na na ngeen boole seen bopp ci benn buum te bu leen tàqatliku yàlla waxaat ne wala tanaza'u fa tafshalu bu ngeen xëccoo su ngeen xëccoo da ngeen di yonjax mooy da ngeen di néew doole mu ne ànd googu nag mi ngi ci soññ mboolem mbokk yi loolu tax cheikhul xadim radiallahu anhu ñaanoon ca qasidaam ga waxoon ne yaa rab ijcal almuridina fi xisnaka alxasina walchamla jmaa yàlla maa ngi lay ñaan nga boole mboolem jullit yépp ci benn buum ñu ànd nekk benn ndax mbooloo mu ànd mën naa sottal lu bari waaye mbooloo mu tàqat li ko du mën a sottal dara moo tax sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy soññ bu baax te ngeen boole seen bopp boole seen pas boole seen yéene ci liggéey bi nga xam ne sëriñ ma Lo daf ko bëgg a tàmbali fii ci ngaaw tey nag dafay àjjuma tey sëriñ bi joxe bis bi nga xam ne moom lañuy def Touba. te ñu nekk ci ànd ceeg bokk yi mën naa naa naa daw doonte fukki minit ak juróom la ma ñëw ànd kook bokk yi waaye nag jéem a delluwaat ci liggéey ba ci Touba ndax ndigal li sëñ bi daf ñu ko jox ñëpp ñu am ñu ñu fa war a taxawee ci pénc ma ma ne leen maa ngi daw ci ñëwaat ñu ngi neggandiku foofu ba tax na kon kàddu yi dafa mën woon a ñàkk rek ci turu sëriñ moodu moo tax ñu yëkkati ko kon daal ñi nga xam ne nun am na nañu mbégte mbégte moo xam ne mbégte mënu ko fete kaw ci lii ñu yëkkati tey ci tegu xeer wi ci daara ji ci bërëb bu tedd bi ci makaan mu tedd mi kon dañu ñaan ci yàlla mi nga xam ne lu sottal moo ko sottal yàlla na ko sottal yal na ko inauguré yàlla na ci ay ay génération génn yu xam diine yàlla nañ ci forme ay xale yu bari yu teg seen tànk ci siraatal mustaqim moom la Cheikhul Khadim ñaanoon ci bërëb bu nekk waxoon na ne waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi defal Tuuba muy bërëb boo xam ne dañ fay jànge def ko bërëb boo xam ne bërëb la boo xam ne dañ fay ku am xalaat bu jub boo ñëwee moo ñu jubbanti ko mawdi al fikrati mooy université yàlla yàlla ngi def Touba mu nekk université mooy université bi ñëw na bi mu koy junj sax booba ñëwagut waaye mawdi al fikri mooy place boo xam ne dañ fay xalaat di fa génne ay xalaat wa maskana taswibi wa tafhimi mooy képp koo xam ne am nga ay xalaat yu baax wala xalaat yoo xam ne dafa xaw a dëng soo ñëwee tuubaa xam-xam ba fa ne ñu jubbanti ko wa maskana taswibi wa tafhimi tafhim mooy lu la jaaxal masala boo xam ne jaaxal na la ci diine soo ñëwee am ñu la ko xamal biir tuubaa moom la ñaanoon ci mat la Matlabu Fawzayni kon nag ñaan gi moo law ba fu nekk daara dana feeñ fu nekk ecole dana feeñ fu nekk jàkka dana feeñ waxaat na tim ne naa ngi leen ñaan yow yàlla nga def sama kër yépp muy jàkk ijal buyuti kullaha masajida sama kër yëpp na ko def jàkk kon nag bu jàkk ñëwee fii ñaan gu nangu la yàlla na ko yàlla fekkile woon ñu inauguré ko yàlla mën na ko yàlla yàlla na ko yàlla def ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf jërëjëf sëñ Modou ñu ngi lay sant bu baax ci noonu la sëriñ Aïcha Mbacké si moom sëriñ Moustapha Mbacké moom Cheikh Mamadou Bassir te sëriñ Moussa Nawel Mbacke muy seex ma jëwriñu Cheikh mu taxa yebal si ko ci jataay bi bu fekkee sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Abdou Salaam moom Cheikh Machamba doon jotal ay kàddoom nii kon mel na ne jataay bi bu fekkee ne sëñ Touba ak ma Massamba ñëpp seeni njaboot a ngi toog xeli taalibe yi fi nekk doy na dogal nañ la ngànt sëriñ bi bisub xasiida bu ñu ko wootee Touba defe naa ne kër sëñ ma Massamba lañ ko wooteel digënté sëñ Massamba ak sëñ Touba Khassida man xamuma ko dox ci digënté bi ñëpp nangu nañ ne Khassida mom sëñ Massamba rek la ko sëñ Touba fété woon ba japp na né bi ci Khassida yi mom suma ko ñëmé won sax dañ naan nañ ko ko bayé ñom ñu diko organiser kon nak buñ ko woté bo dëggé fi bayé nga yitt ju réy réy waaye li nga ñëw it mook xam nga né benn la té xam nga né kër googa gi it genn la njabot gi benn la ñu ngi lay sant nak ci wax ju rafet ji depp ak xam-xam ak xel te doon garab xam nga wax damay wax toujours ne kilifa yi wax bu mënta faj daa mel bu mënta ñàkk daa mel ne garab naan garab moom bu mënta ñàkk wax dëgg yàlla moom ak lema gën am xay am am ak lema ma dàqal am xay bokk sañ naa ko man man mii ak lema ma dàqal am xay waxtaan wi nag daa daa leme daa leme ba noppi am njëriñ daa maanaam daa neex ci déglu gi waaye dafa lamboo njëriñ ngir xóotaayu xam-xam ak xalaat yu ñëw macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm ñaan suñu borom ah, dolli la wér ak kattan ba ki nga ak sëñ Mamoor Anta Salim sëñ ma sàmb mi la yebal itam suñu borom sàmm ko te aar ko te wéyee liggéey bi defe naa da nga ma tuddoon avance sëñ bi sëñ Sall yi daal jox kaddu kon ndaw li nga xam ne moo bàyyi ko ca Touba ci sëñ Muntaxa moom mu Mamadou Bassir bàyyi ko ca Touba ca sëñ Moussa Nawel Mbakke incha allahu di sëñ Aïcha Mbakke moom la ñuy war a jébbal kaddu. xam naa klaxon nag baax na lool ci chauffeur ak saxaar waaye nañu xam ne waxtu julli wi day bëgg a jot. man nak duma xëccu en général waye dal bu mënta ñak mom wenn bi doyna ta taxaw ndax ak nga kat yi xasi dañu gaaw ci buma dag waye nak nañu fexé ba lepp organiser waxtu julli wi rek la bañ ndax kilifa yi mom lu ñuy def bañ nodd dañ koy bay na doon benn bi rek te jox ko kàddu inshallah yow xamna naa sax naan dite nga yow ndil ma daaji ma bi bil muslaf ci la ko wolof ci sang boobu sang nag maa samba sangate ma daaji ma bindu sulaf ci làkku wolof ci sang boobu sang nag maa sam ba sangaate sëñ Muntaxa Mbàkke géejug ngëneel la di dàggay xéewalu ku ña ko gis taar jamo nontel déglu leen maati jirim yi ak baawa yeeg miskiini ñépp la fat la ni yendu moo tiiñal ñu bon ñaati tabawaat daara settantal ko seetlu ba tey yoofoon na bi nasri jàngal yenn di aayaati Cheikh Muntaxa Mbàkke tàppaakonob ay magam ak waajuram bi yërëm rakam ya ak ñanu yar ci yaatu ak yeete sëriñ ak ñanu boot bennoo gërëm ko ba fab tampay ngërëm jox ko muy bankum njëriñ yaati demal ba tiib daaru tansiir ak mbulog yani mel état woon si du xam lan nal doo kaate kon ku dégg lii war a xam bii sang xam kamu doon ngir portale catalogue duy junñi mbir tuuti ma far béral ko ci sant ak bàkk moo di doonay sëriñ sëriñ Basiiru turam waay Muntaxa Saati na yàlla dolli ko wér ak jàmm ak gudd fan ca def nu soppeem bu dul bii ko jaddaati yéen gaa yi mul am ngeen ku kenn amul seen bàkku waa ngi na ngeen may ñaanale tuuti sëñ Muntaxa Mbàkke ngeen jib safoor fata ba yenoo la nga dawal du accident xam na sas interdit fam féete jërëjëf man fu ma ko gisee rek war na maa yëkkati ndax man sama maam moo daan rootal sëñ Basiru ba sëñ Basiru doon sëñ Tuubaa man satu maam moo damay xandi kon bu sama maam daan rootal sëñ Basiru ba sëñ Basiru doon sëñ Tuubaa tey nuy teg fii jumaa satub sëñ doomu Cheikh teew fi li muy xat-xat-xat faaw ma sànni ca dara balay subri sëñ Mbàkke maaram asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mahamadou Muntaxa waaye ci turu sëriñ Moussa mi nga xam ne moo fi yebal ñu teewal ko fi ñuy tàmbali nuyoo bi ci suñu waajur yi ñu nga xam ne moom bu jëlee kàddu rek wala mu teew fi jërul woon sama kàddu di fi jógaat teewaay bi sax bu teewee teewal na Cheikh Mamadou Mountakha waaye bu teewee it teewal na Serigne Moussa di ci ziar bu baax Serigne Mahamadou mbokk yi ñu fekk suñu gan yu leen ziar bu baax a baax xam naa sama kilifa gi wax na ci kàddu yi mu wax doy na sëkk waaye ndigal moom xëy na ma su koo ñàkk a jëfee sëriñ Moussa daf ñoo waxoon nañ ñëw teewal ko fi ndax bu ko jot gi maye woon wala xëy na bis bi ni ko sëriñ bi waxee bis bi mu doon ndigal li ci sëriñ bi joxe day ñëw teewal boppam ci ñaari fànn benn bi mooy sëriñ Mahamadou Lo bi ci toppit mooy sabab bis bi ñaari yëpp sabab la soo xam ne jaar na jóg ñëw teewal boppam kon mi ngi xam ne xam le ne am na amoon na yéene bu baax teewale boobu bi topp it mooy sant mbokk yi bu baax sant sëñ Modou Lo ci xalaat bi ndax ni ko sëriñ bi waxee rek euh, daara moom day loo xam ne yëpp kuy doomi soxna moom nga war a yittewoo sa jéego yëpp ci la ci la war a jëm rawatina nag bi Cheikh Mamadou Mountakha amee xalaat bi nga xam ne sëriñ bi junjoon na ko bu yàgg te yàlla def Cheikh Mamadou taxaa jëmmal ko ñu war a wut nag ay jàngukaay yu suufe yu nekk ci suuf ngir former ci xale yi ngir ñu mën a àggale seenum jàng foofa kon loolu day mel ne sëñ Modou mi ngi ci liggéey boobu Cheikh Mamadou Mountakha yëkkati moom mi ngi ciy jàpp ci wàlla bu baax a baax kon di ñaan suñu borom ñu tàmbali ko ci jàmm ak tawfeex àggale ko ci jàmm ko sëriñ bi waxee ba xale yi ay génération yu bari yu bokkul génne fi macha allah suñu borom defal tawféex ñëpp ñuy ñaan rek euh, mbokk yëpp jullit yëpp ñu xam ne lii liggéey bu am solo la liggéey bu mot a taxawee la liggéey bu mot a jàpp la euh, kenn bañ cee xeeb sa bopp ci dara. waaye kenn kenn bañ cee yéem itam dara ndax lii rek mooy liggéey bi yaakaar naa kàddu yi du jar guddal kon sëñ Modou nga xam sëñ Moussa mi ngi sant mi ngi lay gërëm ci taxawaay bi di gën a yeesal wax na rek bu sañoon mooy ñëwal boppam waaye xat-xati bis bi moo tax moo tax mu yebal nu kon ñi ngi sant yàlla ñi ngi sant bu baax a baax di gërëm bu baax mbokk yi fi teew yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Aïcha ñi ngiy sant baax di gërëm loolu lépp li muy tegtale rek mooy kër gi genn la dafa wax ne rek daanaka bu dul woon ak mottali kaddu yi ndigal yi kàddu gi genn rek lay doon dafa mel ne sëñ bi tuddoon na ma Cheikh Ibrahima Khalil mii waaye sëriñ bi mu ngi nuyu di sant bokki boppam yi sëriñ Moussa Malaw Diouf mi nga xam ne mooy magum dëkk bi kilifa gi sëriñ baa ngi koy sant te di ko nuyu te di ko gërëm di nuyu bokki boppam yi mboolem njabootu sëriñ Mor Issa yëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Lo jiital ca sëñ Moustapha Lo ak mboolem njaboot gi gépp di nuyu mbooleem njabootu sëriñ Amsatou Lo jiital ci du may Mayloo ak mboolem njaboot gi gépp mi ngi nuyu daal bokk yi ak taalibe yi ak xarit yi ak wëllëre yi ak dëkkandoo yi kenn desut mi ngi ñépp ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax ci pour turu mu Mouhamadul Moustapha moom mi nga xam ne mooy jëwri ni maam Cheikh Ibrahima Lo ñu ngi nuyu sëriñ Modou ak bokk yi mu bokkal Baye sëriñ waaye ak bokk yi mu bokkal sëriñ Modou Lo Issa di nuyu itam ci jataay bi kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo fi toog bàyyi ko ca kilifa yu mag ya di sëriñ Mouhamadou euh, mbaki di sëtub Cheikh masamba way di sëtub Cheikh Ibrahima Lo ñëw fi ci ñaari tank di nuyu itam serigne isa mi nga xamne ne bayiko bàyyikoo ca sëriñ Moussa ñom ñëpp seeni kaddu moy suñu kaddu rek te lepp moy rafetlu jotaay bi ak li waral jotaay bi muy jataayub ñaan waye di jataayub mebet ñaan gi naka jek bi bay serigne baye koo fi bata yalla yalla doli leral te doli yermandem wa at mu nek ñu def ko ren nak ñu doli ci mébétum taxawal jakka ak ab jàngu akub fajukaay kon mu melni ni ndol len la ci nuy ñaan ñaan yi nu ñaanal bay serigne suñu borom jotale ko ci yoon waaye mébét mu tedd mii nga xam ne moom la ñu amit suñu boroom dimbale nu ba nu yeggale ko ci nu gën a gaaw te gën a rafet te nun ñëpp ñu fekke ko ndax bu boobaa lépp njariñu lislaam rekk lay doon sëriñ Moustapha daal nee na jëf joo xam ne daa mel ni moom ngeen koy jëfal ndax pénc yi fi nekk yëpp di pénc sëriñ Touba barab bu nekk ka fa nekk daa mel ni dafa toogal ka nekk ci fa ca des ndax li doonoon jubluwaayu sëriñ Touba di fi yebal sëriñ Hamzatu mooy lii rek kon daa mel ni alhamdulilahi rabbil alamin loolu la ñuy wax ndax la sëriñ bi bëggoon dëggu na ndax moom mii toog euh, surtout Masamba Kura Juuf la Masamba Kura Juuf nag euh, kenn la woon ci kilifa yi nga xam ne ñoo moomoon barab bii kon moom bu bokkee ci sëñ Modou Lo ba noppi di ma Masamba Kura su taxawalee lii loolu kon xel dal na daa mel ni lii sama nijaay Moussa Malaw daan wax bu doon mission la boo xam ne dañ leen fee yebaloon ngir ñu war fee réussir dara moom réussir nañ ko waa ndaana ja teg na xam naa bu leen neexee man ngeen a takk seen i bagages dellu ma ne ko nun kon dañuy jaaxle ndax ku mel ni maak sëñ Modou mi ak ñeneen ak ñeneen ñun boobaa nu ñuy def duñ xam duñ mën a ànd ak suñ baay duñ mën a ànd ak suñ nijaay <laughs> kon kon moom booy woo rek nu far def nii rek kon nag jërë ngeen jëf yàlla na sa borom euh, yàggale mi ba di te dool tawfeex incha allah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Ibrahima Khalil ma doon teew ci turu waa Kër Cheikh Ibrahima Lo mën nañ koo jàppee noonu ndax mu ngi wax ci turu sëñ Moustapha waaye sëñ Abdou Khadir ginnaaw yooyu itam teew nga fi di xarit di wëllëre di mbokk te war a jël kaddu yóbbaale mboolem waa Kër sëñ Mor dañu lay jëbba rek kon kaddu bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa kàddu yi day eh, dañuy ragal di ko toftal ci yi ko jiitu mu di ca indi ndoxum donte ñaanuñu ko ndax mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi jiitu tàmbalee ko ci kilifa yu mag yi kenn ku ci ne kàddu ga nga yëkkati doyoon na sëkk ci jataay bi eh, waaye kon ñu di leen nuyu rek ci turu kër sëriñ Modou Lo Issa eh, sëriñ euh, dàbbale loo nekk ca bopp ba waaye di leen nuyu tamit ci turu kër sañ Xasan sëñ asanloo te sëñ Xaadim nekk ca bopp njaboot ga xëy na ay nganti jamono rek moo koy téye ne moom jataay bi euh, ab jataayama Eh, kàddu yi dañ koy jàngal rek jëme ko ci ñaan eh, bis bi lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi eh, yàlla na ko borom bi nangu jooyal ko jëme ko ci mag mu màgg moomee di bay sëñ loo di suñu waajur ñun ñëpp doonoon it sama xarit man personnellement waaye tamit di ñaan li nga xam ne mébét nañ ko ci ay liggéey yu ñu fiy door di jumaa ji ak daara ji ak pajukaay bi ni ñu ko doore yal na ko borom bi jàppandale noonu ci lu gaaw ba ñu dajawaat fii balaa yàgg di ko daloo yal na ko yàlla dogale noonu ah, wax dafa yombut lool rawati ci wax joo waajut ak wax joo xam ne day toftalu ci gannaaw kàddu ay kilifa yu mag yoo xam ne bu ñu xasee yëkkati kàddu dootoo ñemee wax ca seen gannaaw moo tax dañuy tënk foofu rek di ñaan yàlla eggale lépp ci barke alquraanul karim sallallahu sallam tabarkalla jërëjëf sëriñ Abdou Khadir kon ñu ngi nuyu bu baax sëriñ sëriñ Ndam loo moom sëñ Cheikh Lo Amsatou ñu ngi koy nuyu bu baax di ko yóbbante nuyoo ci sëriñ du May mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Amsatou Lo wax na ne da doon yeewi bokk taalibe yi nga xam ne ñoo doon jàng xasiida ya foofu ca euh, barab ba kon ñu ngi sant tey ñaan lañ fa ñaan lépp suñu borom nangu ko dafa mel ne kon dañu waxoon ne ñu ngi nuyu monsieur le maire ñu tuti Demba Diouf ñu ngi koy nuyu baax monsieur le maire Demba euh, di ko ziyaare bu baax di ko yóbbante nuyoo ci mboolem mbokk yi tedd yi ci dëkk bi sëriñ Moustapha Lo Moustapha Diouf chef de village la sëñ bi waxoon ne sëñ Moustapha chef de sëñ bi waxoon ne ñu jébbal ko kàddu xam naa ba noppee xëy na bu fekkee ne ba noppee xëy na ñu jox maire ba noppee rek ki fi teewagal njiitu réew mi ñu jox ko kàddu te tënk kàddu yi ngir waxtu ajjuma wi mu ngi dëgmal sëñ Moustapha chef de village waaw kon incha allah ñu bokk déglu ko maaleykum salaam rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah auzu billaahi min seytaan rajiim rahmaani rahiim mbokki jullit ñoo ngi nuyoo di tàmbalee nuyoo bi nag sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal itam ñëpp ñi nga xamante ni kilifa yi nga xamante ni teew nañ fi di leen nuyu ñoom tamit ci turu chef du village bi ma nekk ñëwal muy Serigne Khoudia Diouf ak ci turu Moussa Malaw Diouf di chef du village Ngabou 3 ak surtout Mouhamadan Diouf di chef du village Ngaabu Sanxaay ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla yàkkati leen ci seen tawat ji nu nekk ñu wér ak jàmm barke Seex Saaliu Mbàkke ak bés bii ñu nekk di nuyu nag sëriñ mooduloo ak mbokkam yi mu fi teewal ñëpp ak i mbokkam euh, di rafetlu itam lii nga xamante ni moom la fi nisër ndax ku ko xam xam ne ci waa ndaam la bokk ak eh, maamam itam di sëriñ sàmba Kura Juuf di maamam kon bu jugee ci lu mel nii loolu du hasard kon ñi ngi koy rafetlu di ñaan tamit yàlla ya eggale ko yéeneem lim bëgg ci ci projet bi yàlla ak Serigne Touba eggale ko te ñu fekke kon ñun ñëpp dooley sëñ falu Mbacké ñoo ngi ñaanal ñëpp di jéggulu nag di nuyu monsieur le maire suñu maire bi Demba Diouf Mamadou Demba Diouf xel dafay fatt waaye dañ ko waroon a nuyu ci njàlbeen ñoo ngi ciy jéggulu ndax kilifa la Ah, ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi lool Euh, lépp li nga xamante ni bëgg nga nit ki euh, commune bi itam ah, yàlla defal ko jàmm ak xéwal ba mu man ko eggale ci jàmm ak xéwal ak i bokkam ak i euh, conseiller am ñëpp di rafetlu itam seen liggéey bi fi liggéey ñi maam daal ñu ngi ñaanal ñëpp daal yàlla yokk fan yi yokk man te lii yàlla na ko yàlla ak sëriñ Tuubaa eggale ci kattanu sëriñ falu Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Moustapha ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm xam naa ngir njëkkante waxtu wi rekk monsieur le dañu lay daal di jébbal kàddu sant la nag ci yitte yu bari yi nga am yëpp dagg ko ngir ñëw ngir dëkk ci dëkk bi ak bëgg dëkk bi ak taxaw ci dëkk bi guddeeg bëccëg te ñu xam ci dara xam naa ne. Euh, seq na lu ab sax waaye tey leen ma sa joxante tey leen ma sa jàkkaarloo nii Ahmadou Jong Baye Jagal laa tudd bu jàllee moom damay damay ñëw rek damay fajaru si moom da foofu laa yem rek ba ëllëg ñu fajaru si <laughs> naa la jox kàddu rek tey bu li ci des moom bàyyi ko noonu ba ëllëg bisimilah <laughs> euh, si jataay bi yëpp ñoo ngi nuyu di siyaare bu baax di jéggulu di jiital si nuyoo bi sunu kilifa yi ñu fekk ci jataay bi suñu si tuddee sëriñ ndaam doomu sëriñ Cheikh Lo bu sëriñ Amsatu mel na ni nuyoo nañ njabootu sëriñ Amsatu yëpp nuyu tamit njabootu Cheikh Ibrahima Lo gi nekk ak kilifa yi ñu fekk ak kilifa ala yi ak ñi nga xam ñoo fi son excellence le président de la république day mel nuyu waa dëkk jël nuyoo bi Tafa mi jël kàddu bi léegi joxe nuyoo chef de village nga xam ñoo fekk ngaaw daanaka rek administration moo demee mais su Pape Tafa waxee rek mel na ne ñoom wax nañ parce que bi ñu ñëw si jataay bi dañ fi indi kasketu doomu dëkk bi ku dëkk si dëkk bi bokk ci liñ fiy def tey bi ñu ñëw noonu lañ ñëwee bon bi ñu ñëw moo tax sax ñun kese ñoo ànd dox dikk parce que dañu xam ne projet bi ñuy def ngaabu lañ koy def te ngaabu lañ dëkk te ki koy def sunu sëriñ la sunu mbokk la sëriñ Modou ñoo lay nuyu yow ak say rakk ak njabootu bàyyi sëriñ gépp di dëkk ci li ngay def te di la ci jàppale di ko ànd ak yow parce que ku la xam soo taxawee lu mel nii du ko jaaxal kon ñoo lay nuyu la ziyaare di la ñaanal suñu borom kàttanal la ba li nga séentu nga àggale ko ak jàmm nuyu waa dëkk bi yëpp ak mbokk yi ak xarit yi ak ñépp nga xam ne jóg nañ te bis bi ñoo leen wasalaam. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ci nuyu bi gën a tedd di leen sant ci sant bi gën a tedd di xam ni dañ fee taxaw. taxawaayu taalibe diggante taalibe ndongo daara ak sëriñam di ci njëkk nag door ci samay kàddu di nuyu képp kuy doomu soxna teew ci béréb bi ñi ngi lay nuyu di jox sa wàccuwaay di leen ziar ziar bi màgg ci seen barke maam Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ñi ngi nuyu sëñ Isaa boole njaboot gi fi teew yépp di njabootu soxna ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen delloowaat ziar di leen dénkaat suñu bopp di nuyu monsieur le maire ñu lay nuyu ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu bépp responsable bu toog fii ci dëkk bi rawatina chef de village yi toog ak képp kuy kilifa ak taalibe ñu ngi lay ziar di ziar suñu sëriñ bi di sëñ Modou di ko ñaanal yàlla di ko ndokkeel ci bis bu rafet bi bis tedd bi di bisu lislaam bi nga xamante ni mi ngi ko nàmpatale ci sang bu mag bi di Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ndaxte lii nga xamante ni moom la dëkk bi am tey dafa nekk mbégte dañuy waxaat ne lislaam amati na ndam l'islam amatina ndam ci Sénégal l'islam amatina ndam ci dëkku Serigne Touba yi di suufam di titre foncier mu nekk beneen bonus bu ñuy ndamoon képp kuy doomu jullit fii ci réew mi ak ci àdduna bu loolu weesoo ñu ngi nuyu suñu kilifa yi ñu àndal muy Biram Xujo Loo Biram Xujo Loo ñu ak délégation bu àndal bàyyeekoo Ndakaaru di ñaareelu secrétaire général Pastef topp ci ginnaaw premier ministre Ousmane Sonko nekk kaar ci parti bi ànd ak doomu ndeyam Mamadou Lamine Diatta di kilifa di responsable cadre bureau politique Pastef yaakaar naa ni tànk yi ñu dox jóge Ndakaaru son excellence le président Diomaye Faye yëg na ko le premier ministre Ousmane Sonko yëg na ko ndaxte ñooy seet ay wëlëre sës rëkk ci ñoom sama yële ñu génn bi Serigne Mor ñëwee Ndakaaru yaakaar naa audience yi njëkk am bokk na ci togg kilifa gi muy mbirum kujël loolu bokk naa ak moom mu waxtaan ak moom jébbal ko projet bi wax ko jafe-jafey dëkk bi ci li nga xamante ni ci la dëkk bii di Ngabou soxla mu ni ko dey maa ngi toog mu mu jite ko timis mu ni ko dey projet bii nga ma jox ñu koy rafet bu baax te jàppal ni bu guddiwul woon dina tàbbi ci loxo fanaan ci loxo Ousmane Sonko waaye li mu guddi moo tax tey jii nii lu mu xat-xat-xat am na réunion bu mag tàkkusaan ak kilifa yu mag yooyu te xam na ni ñi ngi fii mu ni ko da nekk ci yoon ndaxte bis bu rëy bii ngay préparé muy bisu ngaabu bi waaye jàppal ni bis boo dellusee see ndakaaru incha allah audience yi premier ministre Ousmane Sonko di jël yow di nga bokk ci njëkk toog ak moom waxtaan moom dëkk bi sëñ Mor Lo xamal ko ni ko lenn taxumaa jóg du alal du tur du ndaamar bu rafet li ma tax a jóg mooy njëriñu ndaaw bu nga am ak képp ku yeewoo ci tund bi soxna yi ndaw yi baykat yi lépp li nga xamante ni nii dëkk soxla na ko ci li ñuy wax ville moderne looloo ma tax a jóg ñu ngi toog donc ñu ngi leen di santaat baax di leen gërëm di xam ni bis bii allah dawme na ba pare ñu ngi sant yàlla biñ ko commencé ci bisimilah rahmaan rahim jël projet bi nag teg ko ci loxoy Serigne Touba Mbacké ci barke xasida yi yàlla na jaar fa mbir yu baax yi daan jaar. ba ñu jeexaloog alhamdulilah rabbil alamin yàlla dogal bis bu ñuy dajawaat fii ci kàttanu yàlla premier ministre si boppam yor caabi ji ànd ak sëñ Modou Lo si biram xujja ak Lamine Diatta ak délégation gouvernement bi ak monsieur maire ak kilifa yi fi teew yëpp ñëw ubbi jumaa ji julli fii ñaan fi yàlla gën a doole ci réew mi jàmm maa ngi leen di santaat di leen gërëm di ziare waat suñu sëriñ ñu tedd yi nga xamante ni amoon ñu dul ñoom yàlla leen fi yàlla bàyyi yàlla sàmm leen ci sàmmaayam làq leen fu làq àggul ci barke sëriñ Tuubaa xasida yi jërëjëf tabarkalla sëriñ Babacar ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm rafetlu nañu kàddu yi lool yee salaat na ko ni mu ko waxee fee ci biir kon day mel ne sëriñ ndaam loo moom sëñ Seex loo moom sëriñ Amsatu Lo fa teew ci jataay bi euh, te bokk ci kilifa yi itam bàyyi ko ca dëkk ba nga xam ne moo di Daaru te maamam ju baax ja sëriñ Amsatu Lo la sëriñ Touba yabaloon ngir muy ñëw fii taxaw ca ron garab ga diktal ko saaru alxuraan wa muy jàng ba taxaw fee di Daaru tey ba dëkk bépp mag bu topp ci ginnaawam lépp mokk dëpp ni ko sëñ Touba bëggee woon te booba ci at yu néew la ko def ngir at yu matul ñaar fukk fukki at ak juróom-ñett ñu ko ci digg ci man manding mu mel noonu mu fekk fi ñim si fekki woon di ay jàmbaar boroomi xam-xam boroomi fit ay xeexkat mu yebal leen ci seen biir mu ñëw faak jikkoom ju tedd ji ba ñëpp maa nga topp ci ginnaawam kon loolu ñu ngi lay jébal kàddu rek incha allah bismillah aouzu billahi mina seytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyyataha mina seytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazati rabbi israh li sadri wa yassir li hamri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu bu baax ci turu Serigne Dame Hamsatou Lo di xalifa Serigne Cheikh Lo Gaagu Hamsatou Serigne bi nee na mi ngi leen di sant bu baax sëñ Modou ci jataay bu rafet bu taaru bii nga fas yéene amal tey jii. ci bis bu sell bii di bisu àjjuma bi muy bis bi nga xam ne ah ci daa am pas-pasu teg fi xeeru juma di néegu yàlla bi gën a mag sëriñ bi nee na mi ngi ci am mbégte lool ca di la ci sant ca di la ci gërëm ca di la ci ñaanal yàlla sunu boroom tabaaraka wa taala defal la ci tawfeex ba ni ñu ko commencé nii ci bismillaahi rahmaani rahim ñu dund ba àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul xam naa comme temps bi dafa gàtt ñu yemale foofu kàddu yi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, jàmbaar la macha allah ñu ngi koy sant baax di ko gërëm noo ngi ànd di fay ab nuyoo. noo ngi ànd di fay ab nuyoo Serigne Mouhamadou Lo Ngabou di ko sant bu baax di rafetlu ay taxawaayam ngaabu dey war nañoo sant bu ñu sëroo cëroo ci sëriñ Touba ay yoon cëru ci sëriñ Masamba ay yoon cëru ndaam cëru kokki mën nañoo wax ne lislaam kon fenn disul wet gu nekk ndaam am na ngaabu séddu na ca xam naa lu dul doy da dul doy waaye bu fekkee ne bu ñu nuyoo sëñ bi ba noppi gannaaw agsi na fi xanaa nu ñaan ko rekk kàddu yu nu barkeeloo ci moom ci tànk yi mu ñëw dox si ko fi tey ngir li mu bokk ak ñoom bis bi ndax bis bi bisub sëriñ Touba la waaye bis bi bisub ngaabu la te ku tudd ngaabu tudd sëriñ Mouhamadou Lo ngaabu ngir cër bi mu fi am ci way juram Cheikh Ibrahima ak cër bi mu fi am ci way juram soxna Aïchatu xam ngeen ne màggalam gi desatul fan yu néew la insha allahu xanaa kon nu bokk déglu ko bala noo jox euh, monsieur Biram Khoudia mi fi teewal njiitu réew mi balaa sëñ bi di jël kàddu ñuy teg xeer wi ñu jox sëñ Modou rek insha allahu su ko defee jàngkat yi ñu xamal leen ne programme bi day continuer ba jant bi di sox rajo yi neex na kar gi sedd na xéwal yi dina doy diggante bi rek a xat nañu nu sarax waaye jàngkat bëgg a jàng feek yëpp jeexuñu rajo yi kenn du ko tëj fii yaa na ŋàpp sedd guy ndox yi doy na ñam yi doy na rajo yi neex na kon jërta xëccoo kon ñu bokk rek déglu kaddu yi sëñ bi bu noppee ñu doog a jox kilifa gi incha allah aouzu billah bismillah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 ci teewaay bi di sant sëriñ Mouhamad Lo mi nga xam ne moo fi taxawal bis bi tey te yàgg koo taxawe di ci defal ay ñaan way juram doonoon suñu mag di suñu mbokk mu jege di suñu wëllëre tey jii mu bàyyi fi njaboot gi ñuy taxawee bis bi ñu koy taxawal di ko ci defal ay ñaan di ko ci fàttaliku kon loolu am nañ ci mbégte mu rëy rëy ndax bi fi seen way jur bàyyi ko ak léegi yàgg na waaye ci taxawaayu jokkale ak bokk ak taxaw ci ak taalibe ak nekk ay jullit yuy sàmm seen ngor ak seen diine ci loolu lañu xam ci ñoom ba tax na suñu xel di dal ci ñoom saa su nekk seen wayjur itam ku ne xamoon na taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci biir bokk gi ndax sëriñ Modou Lo Issa mii wayjuram ba mu ko noppee gis itam amul woon benn sens interdit ci diggam ak bokk yi yépp ndax ñoom seenu bokk ñoom mag ñi mënta weesu bokk nit ñaari wayjur yépp te loolu mooy li sëriñ mooduloo Lo Issa woon ak sëriñ Hamsatu Lo ak Cheikh Ibrahima Lo ñu bokk ak sëriñ ma Massamba Mbacke benn wayjur bu jigéen ñoom ñépp seenuk and ci ci rafetal kenn ku nek daana la yem ndax ko ci gis rek melna na ne gis nga morom ja kon lolu nak bu ko njabot gi wëlbatikoo taxawé ko xel da ci dal bu baakha Tada baax te damay faral di wax ne ñom mag ñi bu ñu daan ñaan daanañ ci boole ñaanale seenu njabot di ñaanale seeni dom ak seeni seut ak seeni setat ba tax na lu jamono yëngu-yëngu ah ñi nga xam ne day soqikoo nañ ci ñoom fuñ mën a nekk sa xel day dal ci ñoom ndax la seeni maam nekkoon ca la góor góorgóorlu mooy di jàng di jàngale di liggéey tey jaamu yàlla ndax sëriñ Touba dafa waxoon ne bu ngeen dee jàng dey tey jàngale di liggéey tey jaamu yàlla ku sax ci loolu day loo ittewoo ci àdduna boo waroon a jóg di ko wuti loolu loolaay jóge fa mu nekk ñëw fekk si la kon nga xam ne li jafe mooy tegu ci kaw yoon wi bari na ku am ay jafe-jafe walla mu am lu koy jaaxal dafa war a seetaat ndax moom moo wàcc yoon wi te yëgu ko walla déet te wàcc yoon wi nag mi ngi tàmbalee ci koo xam ne bëgg naa dund loo xam ne ay maamam dunduñu ko woon ay baayam dunduñu ko woon ndax sëriñ Touba dafa waxoon ne ku ci jàng day da nga réer te danga nga sorek bàyyi ab taxawaay ku ci jàngale alxuraan itam danga am tuyaaba ju réy ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne xayrukum man taallama alqur'ana wa ki gën ci yeen day moy ki jang alquran ba nopi diko jangale mu ne bi itam bu ngeen ko dee def serigne Touba ne day tax nga manal sa bop te ku manal sa bop de kenn du la sañal motax mu ne jaamu yalla gi itam day tax rafet njort ci sa keuruk muy aljanna kon ko xamne nak say maam ci lol lañ newon yow lu say at néew néew it boo wàccul yoon wa la ca dikkaloon say maam faw mu dikkal la sëriñ Touba mi nga xam ne nag bi mu ñëwee fekk na yàlla dogal na askan wi ngeen bokk muy askanu ndaam ku ne xam na ne am na lum leen fekkeeloon dafa tolloog bi sëriñ bi ñëwee ku ci nekk am na lum la dolli waaye yéen am na loo xam ne lu jamono yëngu-yëngu yéen sañu leen caa bokk kon ndokk bi ngeen teel a xam seen bopp teel a xam fi ngeen di teg seen tànk ndax kenn du ci dem fenn ci barab bañ présenté fi nga bokk ñu xeeb la ci sa jikko wala saw defin kon loolu pàggu téefuk mag ña am na ci kon yàlla na ko yàlla saxal te kàttanal leen ci te ngeen bañ cee xeeb seen bopp ndax kat sëriñ Touba bari na fu mu def dara itam waaye am na foo xam ne nag ba mu ko fay defit fekkoon na dara nekk fa mu ñëw dolli ko lu mu dolli lu nekk nag du naax saay mukk damay wax ne cër bu mu def ci kër gu nekk cër ba dara du ca wàññiku day yokk waaye du wàññiku te kenn mënu koo xañ kër ga àpp na ko nag ba ci sët ba mujj judd képp ku ci mën a taxawee cër ba fa nga koy fekk mu nekk fam newoon waaye dara du ca wàññiku kon nag mag ñi fàggul na leen ab cër bu mat ab cër ndax koo xam ne samaam bi yoon wi taxaw participé na ci ci lu baree bari ci ànd gum ak Serigne Touba ci teel koo nangul ko jëfal ko loola du neen ba mukk kon ku ci yàlla boole ku nekk nga góor góorlu ba gën a sàmm loola sëñ bii ñuy defal bis bii nag di wayjuru sëñ Modou mi ak i rakkam ku ne xam na ne ni mu taxawe woon ci biir bokk gi dafa rek bokk rek la daan def saa su nekk kër gum ci masa a dugg lu rafet rek la fay wax waaye kenn du dégg ci làmmiñam kàddu gu ñaaw walla lu yàq kon yal na yàlla yokk yërmandeem fa mu nekk te lépp luñ ko fi ñaanal suñ borom jotal ko ci te jotal ko bokk ya mu nekkal sëriñ moodu ñi ngi lay sant bu baax ndax gis nañ ne sa taxawaay ak say yëngutu waxtu wu nekk doo ci nopp lu wenn waxtu ngir luy yokk barab bi ak luy yokk dimbali askan wi nga nekkal ba tax nisër yi nga fi am ak li nga fi sumbu ak diko fi sembu yàlla na ko suñu borom agale ci jamm ndax xam nañ ne dara gennu ci diine te yen ci lu yëngu ci diine rek lañ leen war di dégg ndax ci lool la seeni maam nekkoon seeni bay nekk ci kon yen lay jaaxal nit moy ñu seen leen ci weneen waar wudul waar woowu kon nag ndokk bi ngeen sóoboo ci waar woowu ci lu yokk diine ji di yokk njàngale mi ndax fii mu nekkat taxawaay bi moo des te buñ naw mukk suñuy jéego waxtu wu ne nañu xeeb suñu bopp ci jéego yi ndax buñ ko defee rek luñ jëf danañ ko xeeb waaye nag jéego yi lu am solo la kon yal na la ci yàlla kàttanal ba loo fi sumb lu ne suñ borom àggale ko ci jàmm lu baax moom képp ku koy yëngu di ko def boo ci doyloo suñu borom suñ borom mooy taxawee lépp kon nag yàlla na leen yàlla sàmm te taxawe leen te jokk bokk gi bu baax waxtu wu nekk nag noonu ñu ngi jokk suñu bokk ci yéen lu jamono xat-xat na ngeen xam ne bàyyi nañ leen xel bu baax tey bokkoo nañ leen yaakaar nañ leen ci diine ji ak ci yoon wi ndax bu ngeen gisee noonu suñu xel di dal yàlla xam na ne kuñ ci doon dégg ci leneen buñ te mënta jël téléphone woole la it danañ taal oto ñëw ba fi yow ndax danañ xam ne lu ñu leen tudd rek ci lu dul noonu danañ ci tuddaale te bu ñu ci tuddaale wuti fa ñu bokk ci càllale gi genn la te bu boobaa nun ñëpp lay laal kon nun dañuy am mbégte mu rëy ci lu jamono yëngu-yëngu buñ duñ ca dégg mukk ñu tudd ca ci yéen kenn ci koo xam ne ab jam-jam dana ca féete kon nag loolu ñu ngi ciy sant yàlla nag bu baax a baax ci lim ñu baaxee loolu ci taxawaayu mag ñi kon yal na leen yàlla sàmm te barkeel leen ndax jamono euh, àdduna dafa yëngu waaye li sëriñ Touba daan wax rek dafa waxoon ci njaareem ne nekk leen ci li leen war ku ci jéem a nekk ci li la war liñ la warlul bu ci sa yoon nekk kon nga jég ne li jafe mooy jéem a nekk ci li la war bari na ku sonn lool te dafa wàcc yoon wi waaye kon nag yéen waxtu wu ne daal dee leen gëstu na seen maam yi ànde woon ak lañ daan jëfal diine di ko jëf ci yoonu Serigne Touba bu ngeen mënta àgg fañ àggoon it na leen wóor ne yoon wi moom wàccu leen ko te yoon wi ne ku ko wàccul danga nga a egg jamono nag toll na foo xam ne dañoo wax ne boo jëmee ci yoonu yàlla te ku la ne eey nga geesu ko bu yàggee doo gaaw a egg ndax ki la naan eey amaana fi mu taxaw du fi jóg te day bañ nga romb ko kon boo xasee jëm ci yoonu yàlla da ngay góor góorlu te bul gis lu dul yàlla bu ko defee suñu borom moo lay gàttandul boppam kon yàlla ñu yàlla bool yi dimbali képp ku fi teew nag ak li tax nga teew fi say jéego yàlla na ko suñu borom soppi aw yiw ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa loo sant rek ci taxawaay bi ci bëgg mbokk gi ci bëgg sëriñ bi ci bëgg taalibe yi ci jokk mbokk gi ci rafetal noo ngi ñaan suñu borom yokk sa fan ak sa wér ba nga àggale say mébét ci liggéey yi ngay liggéey ci lislaam di ko liggéey ci ngor di ko def ci diine waaye di ko def itam ci ab taalibe kon ginnaaw kàddu yi cant ak ngërëm sëñ bi doon wax rek ne ñu gaaw tënk kàddu yi ngir balaa ñoo teg xeer yi balaa waxtu wi jot waaye way jiram bii di nijaayam sëriñ sëriñ Moustapha Diouf moom la ñu war a jox kàddu bu noppee rek ñu jox monsieur Birame Khoudia mi nga xam ne moo fi toogal teewal njiitu réew mi bu noppee incha allahu sëriñ bi teg ci ay kàddu ñu daal di teg xeer wi ndax xam ngeen waxtu wi fu ma toll maa ngi koy fàttali jege na lool noo ngi ci fukki waxtu ak ñaar yu teg fanweeri minute kon waxtu waa ngi sori incha allah suma jaay bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yu tedd yi teew. maa ngi leen di nuyu leen siyaare ah di jéggalu nag kàddu yi ma yëkkati ndax ñu tedd ñi fi toog bu ñu waxaaree waxaal lañ ma waaye nag dama bëgg a wax tuuti lu jëm ci dëkk bii ak ñëw bi sëñ Touba ñëw ak indi gi mu fi indi sa yam sëtu ñi xam ne bii sëñ Touba ñëw na fi mu jébbalu ci moom mu jàll ba ba mu fi laatu dellu ma sàmb ko dama jébbalu ci moom dafa weex la aw fas ngir ngir ma tund wi am ndox mu neex te ñu baax dëkk bi di ko naan ñaan googa nag dafa nangu la ko nangul mooy ba bi sëñ Tuubaa yebalee sëñ am am sëtu lay ñaan nga nangu sëñ am su ñëw fii ànd ak i bokkam sëñ Ibra Lo sëñ ma Lo Isa sëñ Abdou Karim sëñ ma Sàmb Mbàkke kon kooku ñaan nangu na ak sëñ Mbàkke soxnaan kon nag loolu mun mu ko na ñàkk seere ndax sëñ Touba ba mu fi jaaree ñëwaat ah mel na dëkk bi amoon na nu meloon waaye nag sëñ Massamba Coura aw fas la weexle ngir ñaan tund wi am ndox bu neex ak ñu baax ñu fu dëkk di ko naan kon nag ba sëñ si loo ñëwee ak ànd ak i bokkam la ñaan ko nangu kon nag yéen ñi fi loolu doo nga laa bëgg nu waxtaane ah yàlla na suñu borom doole xéwal tey lii yàlla na ko yàlla àggale ngir ñaanal may may itam nag ah ma am lu may tàmbali dëkk bi ma it sama ne sama kër ngeen ñaanal ma suñu borom jàppalal ko barke borom Touba yéen ñëpp nag sàkku naa ci yéen ñaan dañuy war a jébbal kaddu son excellence monsieur birem khudja lodi han Lo xamna ne Lo mom dégg na gaay xam histoire ne mom budul ndamit man te génn directeur général Pastef deuxième secrétaire général bu Pastef bu fekke ne munuma ko tuddu ndam ca enle Sénégal it warta mën a génn Saman ibnu sufiyu defena non la bu fekke djumuma waaye nag dafa dul xaj ndax waxtu ya gàtt waaye daal ñu ngi lay jox sa cër di rafetlu ñëw gi fi ñëw ak ànd bi nga ànd ak suñu sëriñ bii di rafet lu ànd bi nga ànd ak njiitu réew mi ak président Sonko ak it ànd gi nga ànd ak ñoom di yaata liggéey bi ak na pexe yi ngeen ñu gaaral muy procès bi ba Sénégal fan lent yi ñuy ñaan suñu borom may leen ndam ba ngeen àggale ko ci barke alquranul karim bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooleem ñu ñu fekk ci béréb bii di ci jiital kilifa yi nga xam ni ñu ngi bàyyi ci sëñ Muntaxa Mbàkke suñu sëriñ bu mag ba di ko nuyu di ko yóbbante nuyoo comme niñ koy defee bés bu ne di nuyu sëñ Motloo mi nga xam ni suñu xamante fisik yàggul waaye nag wax dëgg yàlla yàgg nañ ko suivre

ñor waa réew mi maanaam kilifa réew mi maanaam premier ministre parce que bi ma ko jébalee de ñoom seen mébét wax nañ ko mooy toujours njàng mi jëm kanam ndax njàng mooy réew te ku ni daara wax njàng kon tey mbégte la ci ñun ñu fekke si tegu xeer bi tombeek cérémonie bi ngay defal sa waajuru góor di am mbégte di teewlu waxtaan yi ñu fi def yépp déglu ko ak teewlu déglu ko ak jànge ci defe naa kàddu yi fi jib ku ko dégg xam ni ñu ngi toog ci dëkku xam-xam ñu bég lool tamit ci li ñu bokk ak yow sant kon ñu ngi fekk si suñu ay mbokk fekk si suñu ay xarit fas yéene nag lépp lu nga xam ni mën nañ ko ci li nga xam ni da nga ko mébét muy gouvernement muy leneen euh, ñu taxaw taxawaay boobu ndax euh, li nga mébét day jëmale lislaam kanam lu jëmalee lislaam kanam boole kook njàng jëmale Sénégal kanam donc projet bi ñuy wax nga xam ni ñu bare ñu ngi koy wax ni wax dëgg yàlla gisaguñ ko ma ni projet lu ñuy tënk ci livre la lu ñuy tënk ci kayit la mi ngi mel na nga jóge fii jëm Matam ndax bu ñu nee projet mooy da nga projeté boo projettee nag da ngay am jéego yooyu dox ba egg fa nga jëm boo fa eggee ñu ni projet bi mat na mais projet bi dafa am ay étape defe naa jéego yi ñu teg ci mbirum mbay ci mbirum napp ci mbirum sàmm ci mbirum autosuffisance bi ñu dëgmal loolu moo mën a indi réew mi nekk ci jàmm su dul loolu lépp lu ñu def mu jëm ci wàññi dund directement dafay ne doon saafara wu jur jàngoro loolu la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di éviter lolou le premier ministre di éviter motax ñuy dem à pas sûr di ñëw nak di sakku ñaan ndax dëkk bi ñu ñëw dëkku ñaan la ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal président de la république ñaanal ministre yi ñaanal directeur généraux yi ndax kat ñoom ñoo ngànk liggéey bi te bu ñu ko defee nañ ko war a defee te am nañ ci yaakaar ndax jub nañu dañ ni jub jubal jubanti jub moom am na ci ñu ñu jiite jubal bi ak jubanti bi loolu liggéey la bu nga xam ne mu ngi ñuy xaar ñu leen di ñaan ngeen ñaanal réew mi ñaanal ñu loolu ñu mébét yàlla nañ ci àgg ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf tabarkalla jërëjëf loo sëriñ Mouhamadou rek lañu war a jox kàddu nee na sax amu ko fi ndax li mu waroon a wax bokk yi wax nañ ko waaye xanaa day sant rek bokki boppam yii ndax boo amee bis am ay gan wax leen ko ñu jóge dëkk dëkk ñëw ko dikk fekk sa bokk yëpp wër la njabootu sëñ Tuubaa wër la say doomi baay wër la say maam say maam ak seen maamaat ñëpp seen i bokk teew fa ci ay ñëpp di ay kilifa ci bis boo xam ne bii nit déplacé wu te jafe na ngir lu toll ne xalif général bi muy santaane ci teewul ñëpp xam ne ñoo ko bokk ñeen ñi ñëw fii ñi ci des mënu ñëw ñëw ji dem ak baagante ko ñëw loolu cër bu rëy la waaye daal li nga xam ne mat naa bàyyi xel sama di ko wax ma toll te tibbee ko ci te jiitu nag projet bi wax dëgg yàlla jiitu projet bi nag ndax projet bi fekk na fi nit ñu baax na bëgg réew mi xam nga bu ñu ko tabaxee daa yàggul waaye yaakaar naa bu ngeen balee di ngeen xam ne am ngeen ñu ngeen bokkal ay yéene ci pas-pas su ma mës a dégg mu daan wax naan nit ku baax da daan toju xul dem ca tund samp fa kër ñuy liggéey di jàng bu wér kooko jur mu xam la ko wax Sénégal na dem ko xul napp sàmm bay ba mu ñor yeew nag a gëléem ak xar semb am juróom di cagal dafa xat du ma guddal du ma wax du ma wax ne daa xas ba noppi di yàq. <laughs> <laughs> sëriñ Mouhamadou suñu jëbal rek gàddu si sànq. foo ko masa jote woote ca kaw ni nan wuti. noppee ti nga am jote ti. ca daane woo loola ndigal. ndigal foo ko ni nan wuti. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa te wéral ko bay mottali suñu yéene ci moom mottali yéene ci ñoom di nuyu sëñ Moussa Nawel moo yebal sëñ Issa Mbacké bi mu doon fi jëmmam kër gi doon këram xam ne luñ fi def moom lañ ko defal ba tax na mu nekk ci ay liggéey ci sëñ bi yebal sëñ Issa bi ñëw ah li li xew ci dëkk yëpp nag lan la la sëñ Modou Lo mii moom soxna Mbène Ngabou ak Cheikh Ibrahima Lo moom mooy kilifa jotaayu bi waa Ndar yëpp njabootu soxna Issa noonu la fi mën a teewale njabootu Xaadimu Rasuul yëpp kon moom doo ko bu ñëwoon jël kàddu da doon doy sëñ Isaa yi bi ñëwee ñëwal kër sëñ Basiiru gépp ñëwal sëñ Muntaxaa mi yor kër sëñ Tuubaa gépp su waxoon kàddoom dana doy sëñ Ndaam Lo muy xelifam sëñ Seex Lo moom sëñ Amsatu Lo bu jëloon kàddu moom donc kàddu bi dana doy ñu ba Alaaji Lo mi nga xam ne moo fi nekkal te Seex Ibrahima Lo ci ci dawul sëñ Musaa Lo tey ak sëñ Dame Lo nga xam ne Cheikh Ibrahima sama rakk tey bu ñu woon a jumaa tey mu ngi fii mu yabal ko ak sëñ Abdou ñooñu kenn bu ci jëloon kàddu mu doy kon waroon na maa mën a bañ a jël kàddu waaye kàddu gi ma jël ci kër Baye Serigne Lo maa ngi ci ànd ak suñuy wàññi ñu ñu fi sëñ bi bàyyi loolu muy soxna Bintu bi ak soxna Mati Samb. Euh, lii may wax nag maag sëñ Xaadim sama rakk ñoo ci ànd ak sëñ Seex ak sëñ Asan Loo ak sëñ Jiili Loo ak sëñ Amar Loo ànd ceeg soxna Daba Loo ak soxna Ndey Loo ak soxna Ginne ak njabootu soxna Njóoba gi fi yàlla bàyyi te sëñ Moodu may mais topp ci man ci jumaa ji ak i rakkam ak soxna Bintu ak soxna ñaanaloo ak soxna maam Mbène ak soxna maam Anta ak soxna Fatou ak soxna Ami Fall ñoom ñëpp dama ànd ak ñoom ci lii ñuy def ñu rafetlu ko ma door koo mën a génnee kër bi mu génnee fi dem ñëpp rafetlu na ko sëñ Cheikh ñu gën di dem laa ñuy waxtaan ak moom mu fekk moo ko doomam waxtaan ci diggante sëñ Mando ak Cheikh Ibrahima Lo kon ñi ci war a àndal ñëpp naa ceeg moom. waaye li ñu def lépp li tax ma ne sëñ Modou lañ ko defal maag Baye Serigne Lo dañoo xaritoo woon doon benn mu doon magam daan diisoog moom tey su fa Baye Serigne nekkatu ma doon doomam nekk ci kër lépp lu ma fi def dafay jàpp ne moom laa ko defal kon lépp luñ fi def moom moom moo ko moom. Ah, di nuyu itam chef de nga xam ne ñooy dalal dëkk bi. ñoom ñëpp kenn ku ci ne tam tàmbali ci maam Serigne Badiou Diouf ak nijaay Moussa Malaw ak Moustapha Diouf ak Mahmoudan ñoom ñëpp ak sëñ Abdou Salam maa ngi leen di nuyu. sëñ Mbacke mi xam ne Ngaabu Murid moo moo moo bi ñu ngi koy nuyu ak sëñ Baara xam ne loolu moo taxoon sëñ Tuubaa indi leen ñu fekk si njabootu sëñ Massamba kuréel gi ñu teeku leen dalal leen. ah lañ man seen doole ñu koy def ñee lañ am seen xam-xam tasaare lislaam ñu koy def ba loolu moo waral tey mbooloo bu fi nekk yëpp njabootu soxna si ma sàmb kuréel dong kon ànd bi dëgg la te diinee ko la tey te moo te te yàgg na bàyyi sëriñ loolu ah, bi gàtt laay loolu rek laay wax moom laay def ba arab bu ne wenn way dama ne bis bismillah ma jóg man mii te way ki ma yor kookaa di bàyyi Serigne Lo di njiit te topp koor euh, euh, euh, alif bi ma ne ak lewetam ci askan bi leer na ñëpp ñi ko xam rawatina ñi dëkk fi ngaa ko ak li ko wër yàlla ak yonent bi ak Xaadimu Rasuul rek la wax firnde ji mooy alquran ak sunna ak xasida manam ñaan na ci ñaan kat ak ñaan bu jëm si mom ndax yalla may nangu ñaan ñaan ko rek dañu war lu mat a def wax na ko lu mat a wax wax na ko nan roy ci mom abada nan ci roy ci mom lu man te sax ci jëm abada wér bi ak julli ge ñaanam bu mu dëkke gon yalla ko yalla bu yalla fu defal ko koy ngeneen fi mu am xaafis da daan ñëw ci moom jaahil da ñom ñëw ci moom te kat ku ñom ba fi mom gis loola yéen abada lool moy loo xam ne dañ ko doon waxi bàyyi sëriñ ku xam bàyyi sëriñ jàpp naa ne mënuñoo wax lépp waaye loolu dana la xamal ci ay doxalina yam doon dox ah di nuyu nag mboolem waa dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu gan yi fi jógee nekkal fi jiitu réew président Ousmane président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko moom itam ñoo toog nii muy biram monsieur biram biram ko ñu loo ak Mouhamadou Lamine Diatta euh, ak euh, Babacar Fall di boole ñuy sama nijaay nijaay Moussa nijaay Moussa Diouf ak nijaay Cheikh nijaay nijaay Ndongo Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi nuyu bàyyiwuma kenn ak nit Samba Sën ma ci dudd rek nga xam ne euh, jotaay bi ak xataay bi moo tax di nuyu magi bi Serigne Ndiaye ñu Euh, moom itam ak Abdoulaye Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi fi ci liggéey bi ak Adama Fall nekkal fi Mayoro Ndiaye ak Abdou Sall mi si yi doomi nit ay moom it liggéey bi ba mag liggéey bi nag li ci jublu moom mooy liggéey yàlla rek loolu doomu moo ñu tax a jóg deful procès deful xaalis dërëm ko jàngi nii ba ma teewee nee naa soxla ma dërëm soxla ma matériel damay def procès te ngir jëm yàlla jàpp naa ne ki koy defar mooy yàlla yàlla moo koy moo koy defar jaarale ko ci njabootu Xaadimu Rasuul bi ba fu mu war a àgg mu àgg fa waaye defuma projet boo xam ne nii dama koo def ngir aj wuti xaalis wala ngir lu may tabaxi sama kër wala lu may jënd yoon yàlla la liggéey te jàpp naa ne képp koo xam ne yëgal naa la ko bu ma doon seetale àjjana bu fas yéene nga am te su ma doon seetale àdduna yi bu fas yéene nga am te kon lii buñ la ci tuddee nga dox ci benn jéego damay jàpp ne lu ci am ñoo ko bokk loolu moo bi ma defaree projet ba bis bi mu nekkee ñu jébbal ma ko ci bis boobu la Sëriñ Muntaxa woote université bi ki ma ko doon jébbal ma yow di sa projet bi am naa ci yaakaar bi te lañ mooy jàng ak yàlla ak faju te loolu moo am ci université bi ma ne comme ci jëwriñ yi lañ bokk lépp sama projet teg ko laa am digal ci Sëriñ Moussa euh, Naawe ma door a mën a yëkkati projet bi di ko def kon nga xam ne projet bi boobu doonoon na lu yàgg ah, kon nag bi ma ñëwee ñi fi nekkal diine ji rafetlu ko ñi fi nekkal aada ji rafetlu ko kon ànd ci suñuy kilifa yi loolu dañ ci sant yàlla bu baax dëgg ci gërëm di leen xamal ne ñi ma bokkal ñu doon samay rak itam bu fekkoon te ne am na ci kenn boo xam ne ñu gisewu ko nii mën naa am ba ma ko dee def tamit bi dana yeex waaye am na ñoo xam boo leen ko waxee dañ cee bëgg yëkkati ay àgg yoo xam ne dañ koo def sama diggante ak moom ngir li ma li ma naam kon du yow ma ca kenn te lépp looy def ànd ci sa say mbokk ñu rafetlu ko da nga yaakaar ne loola da nga ci am ndam di ñaan yàlla daal ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nekk gi nga xam ne nii moom lañ fi nekkal Xaadimu Rasuul si ndigalu si Muntaxa ak si Musaa Naar ba fii doon daaru mu nag tey boo ñoonee gaa bu leetal boo ne daaru mu nag ko fii kon daaru mu a bii bokk ak daaru mu a googa la ñuy def ci daaru mu nag moom lañ fas yéene di ci roy fii ci daaru mu nag ànd ceeg waa Ngaabu tey sëñ Moodu bu nekkee ca bopp rek rafet na ko doy na doy doy doy na jëf ju baax sëñ ak docteur Mouhamed Looy tey jii day jiite jumaa moo ko fi tey ñëw day jiite woo na ma ne ma bu ñu woon ak jumaa ji damay ñëw a ñëw foofu laay njëkk a ñëw ndax li ngay def dama ko rafetlu te yàlla rek a tax te mbokk yëpp seeral nañ ne loolu kon loolu itam ñu ngi sant bu baax a baax daara yi ñu ngi fi Cheikh Abdou la yor sëñ Ndaam mi sama rak daara la yor Ibrahima Khalil Malik daara daara la yor ah, ah, ab ah, sëñ ndaam nii itam daara la yor wala fi ay daara doo nga fi ne ndaam bi taxaw na noo xam ne ay daara doo nga boole ndax doo xoolee daaru moo ngi nii daaru nayi maa ne daaru raxmaan a nga ne daaru salaam daaru daar daaru xuddoos daaru monti daaru karim ngaa bu ne ci digg kon loolu it daal xel la kon daal waxtu bi jot na te man maa war a taxaw fële te kilifa yi am na ci barab yu ñu war a taxaw yi kon daal sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di ñaan yàlla daal ñu dajee génn gërëmal suñu borom am ci itam gërëmal Xaadimu Rasuul mi ñu fi indiwoon waaw waaw itam waaw monsieur Mouhamadou Dem moom itam ci ci ci ci aada yi moom moom lañ fi fekk si moom moom lépp moo yor suuf si moo yor lépp kon lépp lu ñuy def euh, ñoo ci ànd ndax itam biñ accès liñ njëkk a def deux fois yi oto yi daan di accidenté mu ñëw dagg garab yi daa mën a ma de eh, jëf bu amee du yem sa kër waaye day benn ma bu dee jëf nguur nga def ne rafetlu naa ñaari bi lu mat fukki après ñaar fukki wax fii ay doo daan oto yi am ci accident ci gaal bi kenn xamul toll barki dem ba ko defee damaa jëkk téléphone woo ko sant ko ci loolu man lépp luy soxal gaal ak li ko wër loolu rek moo ma man yàgg bu fu ma mos a xutba kor yi wala tëbës bu nit ñëpp dégg nañ nga am xam-xam boo soxla am na fi bu dee arabe alquran français anglais espagnol lépp am na fi di dëkk ay ay lu ne am na fi maanaam ci wàllu métier métier boo soxla nga am mën na am kenn ku ko mën a def ay borom kàttan yu mën a liggéey yàlla def na leen am na fi ay benn benn nit yoo xam ne bu doon financé euh, am na lu mën a financé kon xàjjate doo doonandoo gi bu te ku Touba doon sa royuwaay sa dëkk war naa mel noo xam ne dana mel ne a di Touba lépp lu ñu aaye Touba ñu ko fi aaye di roy ci waa Touba di roy ci waa Ndam. bu ah, buñ ci saxee rek loolu mooy salaatul mustaqim dañu jëli fii ñu jëm ba àgg ci àggale ci yoon bi sëñ Tuba mu àggale ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ci yàlla nañ tase booba nag ak lu neex yàlla ba mu dugal ci àjjana ya xam ne mooy fiir dawsi la foofu daal laa ñettatee kàddu yi nga xam ne lu ci jub xaj na baax yàlla ak yonent bi ak suñ kilifa yi ñu wër moo tax ndax waruñ fi war a yëkkati kàddu su amee lenn ci ay rëq rëq nag nga xam ne nit moo mën waaye lépp luñ fi dox wala ñu wax ko lu baax luy jur njëriñ moo tax ñu ñu koy def waaye lenn ñu indi lor wala lu ñàkk njëriñ itam ñooy jóg ñoo ngi baal wax ñëpp di baal ak ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala alhamdulillahi alkarim sinan على السخال بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني لوطن بنفى نفى مع القنين وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخيل وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا هل الذي خزي حمى تبعا هل الذي من بمراد اختدى في سر وجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع والي وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هساوين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن سكرك شكرك العليم منذ جسبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري معاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجس أرواك فجدت لليوم بخير مني وقدتني إلى اختفاء سني من بعد ما قدمت داو الناس يدخلني في سرك الخنازي وكدت للأمراء والمتراعين أسد في تالف والإخراع وفي تعلم وفي التعليم وفي اتخال بهدى معلوم فقلت ذا سكر وسا توسل بالمصطفى سفي عين الرسل وبناتي ما يسعى في أسرع الأجمال وببنيع وبناتهما ليسعوا في سريع أجمال يا بر يا غفور يا عليم إني أخور دائم مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالك يا خالق الأنام هبنا نوايا حليل المنام يا مالك يا خالق الأنام أمنا نوايا خليل المنام يا خالق يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت سو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي من كارهم اليوم أن نكون ممن نبون خير كركونا وأن نطيعك بناجي المصطفى سنتي البيداء يا من اصطفى يا خافر الصنوب يا خريب إني عبيدنا هنا خريب لأبثاك والإخوان الجميع سعادة دارين عقل يا سمي هب لي في هذا دعاء الجابة بالمصطفى والآل وصحابة هب لي في هذا دعاء إجابة بالمصطفى والآل وصحابة هب لي خير القدم في مقاسمي وللسويدين بجاه قاسمي ولسف الليل الأوال بهيما بحرمة المعبود إبراهيم وليسق العلال طيب وخير جيران يا طيب وسفني في باكن وساعر ورمي بها يا بأخ وسفني في باكن وساعر بها الخلق بها اقتاعي ورقني ترقية القفية ببنت عين رقية صفية وقياسا يا أخربا وأنبا ومسلما وكافرا بزينبا أمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى العيام ولي جربي بوني الخاتمة هنا وفي خد بجاه فاتما سل على أبهم والآل وسابه والسجر صالي وكن سوى مني من الدرار ولا جني من اخترار وخلال